ki moom mooy bombardier ak bii nan nga gisee ñaari préparation yooyu. li may wér ba mooy boo paase na ñu ngi ci tay jii. ah mais côté préparation bi moom moom moom ànd dañuy ànd tout temps. mais dafa am kilifa yeneen yoo xamante ni ñoo ko yilif tey am na kilifa gi nga xam moo ko yilif gi am na kilifa boo xamante moo ko yilif ci musculation bi am na si moo ko yilif ci nga xamante ni mooy loolu ko liggéey bi moom dafa dafa yaatu ñu ngi ko sekkal mais le de toute façon mooy le 7 août moom yàggul bu ñu simee koo kenn ku ci nekk moom askan bi dina leen jugé waaw bu ñu jàppantee aussi ñoom ñaar nga xam kooku doole. bi ma nekk mhm. bi ak bii nii uh-huh. mel nu meloon. Uh-huh. waaw pourquoi nga jox ko Balla Gaye donc ñoom ñaar ñooy bëri adversaire moom. Uh-huh. ñaar lañ ñoom ñaar n'est-ce kon yaakaar naa ne bu kii mën na bëgg a kii bañ a bëri. waaw l'essentiel ma xam naa ne combat bi dina neex ndax ñoom ñaar ba ñu bëri kañ jëpp loolu nest bi passé ku dee ak sa bàmmeel Gris Bordeaux Balla Gaye moom xëy na tey mën naa bañ a géey nit ñi bañ a toog waaye jour combat bi moom instant bi dina fees dina am ambiance dinañu bëre dana neex Balla Gaye dina daan ci kàttanu yàlla. Ah, euh, Sathiès ñu ngi lay nuyuwaat di la jaar. maa ngi lay fayal. waaw tey jii euh, gis nañu nga ñëwaat taxaw taxaw taxawu sa mag. Mhm. comme ni nga ko waxee léegi te combat am nga combat mais taloo ko yaa ngi sa combat wu mag mooy li sa tur. Mhm. mais tey jii moom Gris Bordeaux gis nañu ko mi ngi si si réseaux sociaux yi di wax. Mhm. ni combat bi dina wuteeg bu njëkk ba. tey ji looy wax sa mag tey gis nañ ko macha allah forme bi xel dal na mais tey lay wax jour combat bi le set bi daanaka jege na ba pare. waaw bi sifle ñoom ñaar xeex bu ñu doon xeex bu njëkk ba. ak bi ndax dana wute. wallaay gëm naa li mu wax dëgg la. combat bi dina wute. ndax li ma gëm bëgg mooy Balla Gaye na toog ci kawam. Ah. Ah waaw loolu moom lu ma gëm la. xam nag moom yàlla da ko natt moom képp ku muy bëre ay wen nga koy daane kadaab bi. Ah. waaye bi yoon moom bëgguma mu am ci te ñaan ma ko yàlla. waaw fii Balla ah surprise boobu laa bëgg. waaw Balla Gaye kenn moom ñu naan dafa bi du neex wala neex moom kay lenn moo mën a am mu ñëw jaay combat am sacrifier boppam mais pour bëri ak moom nga koy ñàkkal fayda wala muy ñàkkal fayda boppam jamais de la vie. mais gis nga dina gaaw dina yéex. non ça dépend ci ñoom ñaar. combat nag dafa am kii koo xamante ni mooy appliqué ak koo xamante ni nag ah mooy mooy mooy kii mooy delloo yëfi. moom nee na Balla waaw loolu moom wax nañ ko ci wax ji njëkk ja dañu ko andiwaat rek. lam moom mën na diir sa 30 secondes man bu doon sama sago moom. boor bi sifflé rek mën na ko njàmbaas bëtt ko wër ko ndox mu doo ci suuf ñu seet leneen. Balla mu daan si combat bii ne ko jàppee ne du du jur tudd ko. tudd sell bi moo màgg dañ bëre. nekk 18 ans à l'âge de 25 ans mu doon roi des arènes. Balla Gaye boobu moo nekk nii ba léegi. cest ñu dafa am benn benn benn benn benn benn kàddu bu ñu sonal mooy nit bu ñu fàttee doomu aadama la rek ñit mënoo nekk ci jàmm di woy dagay feebar dangay dangay soox dangay ngay problème da ngay nekk ci jafe-jafe mais teewul benn jëmm ji moom la yàlla teg loolu lu ko dal yëpp dañ koo nangu assumé ko tey loolu lañ moo moo tax yàlla teg ñu fii waaw doomu dubale sa weex dun ko rek mais préparation combat dañu gis ne na mu daan def di affiché wu di wane ay entraînement loolu yëpp daf ko dindi dégg nañ sax mu ne léegi changé naa la ma daan def dootuma ko defati te bésub combat bi lépp dina leer non moom moo moom moo jël combat bi gën ñu koo bëgg tey jii bu dee wàllu wàllu entraînement man dèjà dèjà fi ngeen ko fe fi fi laa ko fekk xaaru ci kenn kon yaakaar naa ne am na loo xamante ni moom su ne moom bëgg na combat bi man du ma ko weddi dara parce que man dama daan yeewu man dama sawar ci entraînement maa daan yeewu to di ko xaar mais wallaay la si moom moo yeewu di ma xaar kon yaakaar naa ne nit moom buy xëy di am jot moom ki la njëkk a xëy toog di la yee ah <laughs> kooku woon na moom gën ko bëgg combat bi waaw xaw ma nag yéene bi maa ngi moom kan moo ko ëpp ci morom mais mun naa wàcc yàlla moom moom ñu gën ko bëgg combat bi bu yàlla ko sant yàlla ñaan ñëpp yàlla sa <laughs> ñaan ñëpp jàmm ñëpp góor ñëpp am xaalis am wér am gudd fan am yoonu yokkute ñu waajur yëpp yàlla bàyyi leen fi ñi dem yàlla xaar leen jigéen ñi bëgg xaalis ñi yëpp yàlla suñu borom bàyyi leen ñu wàññi salvateurs yi ñi moom ñu gàtt ñi neen dee sama